waaye gën gënu ma am lu ma naqari sama xol bi gën gënu ma am ma naqari ma gën am lu ma métti waaw ah, gën am ma métti waaye man ma si dara foofu sama métti sama asalaamaaleykum internet euh, Senego TV ak kawteef ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk di leen jox seen wàccuwaay saa su ne rek niñ leen koy waxee dañuy kontaan ni ñuy suivre sur nos différentes plateformes saa su aussi information bu amee rek dañuy jóg yëkkati suñuy dàll ñëw tàllal suñu micro ci ñi nga xam ne information boobu ñooñu la yeyal tey nag dañu ñëw fi nga xam ne mooy Yoff Tongoor Yoff Tongoor nag li fi jot li fi xew nit ñi am na ñu ko yëg am na ñu ko yëgul ndaxte doon na ñaari ndaw yoo xam ne tey toll na ci neuf jours seen waa kër teguñ leen bët ginnaaw ba ñu tàbbee euh, ca géej ga doon def li nga xam ne euh, moo di napp ki ñu toogal nag moo nekk waajuru kenn ñaar ci xale yooyu ñu bàyyi ko rek mu nuyoog internet yi ñu sóobu ci waxtaan bi yaa booy ñu lay nuyu. leen di sant bàyyi leen sant sant yàlla julli si nabi ñaan yàlla sama doom fu mu nekk yàlla naka yenn nitu yàlla nit bu mu dellu siwaat samay loxo te doom ju ma déggal man topp ay ku topp ku duggul si dara waxul dara man su am lu ma naqari si moom la bi ma wanee gannaaw ma koy mi nga xam ne moom la kenn dara teew ko lépp ma teg ko si loxoy yàlla ndax moom moo lay may moom moo lay xañ may ñaan fu mu nekk yàlla na ko nitu yàlla nit yàlla na ma ko yàlla indi waatal samay loxo mook doomi jàmm jooy dara bañ ñoon jot si kàttanu yàlla dafa demoon jiyaay rek ndax ñun jiyaare rek ndax ñun waa dafa demoon dem liggéeyi di jox am yor nu yor kër gi yor papaam yor léppam sunu dara tàddewul ndax moom sant yàlla tam yàlla nag cap seexlu maytu ko musal ko si kàttanu yàlla ak jëmmi Rasulullah fa mu nekk na man xaw ma dara yàlla rek moo xam waaye yàlla na ko yàlla taxawul biir ka laq ka fa mu laqoon yonent ba kenn jotul si moom yàlla na ko yàlla defal la may ñaan si kàttalu yàlla gouvernement bi nu dox seen liggéey ndax ku réer boobu ba tey nekk si biir géej kenn xamul si loo ne yàlla rek moo xam nuy wax wax waxu euh, euh, marin marine mënul dem hélico bi mënul naaw te ñu gouvernement bi te ñun xanaa ñun ay mool ñu te ñoom bu nu leen falee ñun sunu ay loxo ngi si biir génnu si waaye war nañ mën na taxaw ñun mool tegul nu fenn war nañu mën a taxaw dimbali nu ba lu xew si ñun nu gaaw a jóg mu taxaw mu bañ àgg fenn juróom-ñeenti fan tey juróom-ñeenti fan tëmbal nan ay gaal gaali bis su jot nu tëmb da ngay jaay essence de mot bis bu yàlla sax téeméeri junne bu teg wala huit cent mille nga dem taal daw si géej gi ba sonn gisoo dara nga dellu si xam nga loolu metti na ñu ñaan nag ñoom gouvernement bi nu jóg jàppale nu dimbali nu te yàlla tax ba ñun mool nu am fu nu teg bu ndax accident mënul ñàkk ndax kiy liggéey si géej wala muy liggéey si kaw joor gi a mbett mi fépp yow yaay am accident waaye nag boo amee nu am taxaw rek nañuy ñaan moom lañu ñaan autorité yi nu dimbali nu taxaw ndox nu am taxaw ku taxaw ñaan nag si kàttanu yàlla sama doom yàlla na ko yàlla niitu yàlla niit delloo silmakaak doomu jàmm jot dara bañ leen jot moom rek laay ñaan moom rek laay ñaan dinañ yegg si dinañ yegg si ci sam ci kanam ñu am tàmbali ak question yi rek ak sama yaay pap ñu ngi ñëw euh, sànq sa wax da nga wax ne euh, gouvernement bi autorité yi nañ leen jàppale tey bi nga xam ne loolu am na euh, ñi nga xam ne war nañ ko yëg dem ngeen fa def ngeen ay jéego ngir ñu mën leen jàppale la ndaxte it xëy saa su ne di jënd essence su cinq cent mille wala huit cent mille dafa métti surtout fi jamono toll fépp fu nu war taxaw ndax KBPS fi ne keroog ba mbir mi amee bi gaali laata si ñoom na lu jëkkee ñu toog di leen xaar. ajum bisu alxames sa tëmboon ba ajjuma teerul samdi dimanche altine ba talaata ki marine bi mënul fexe ba tëmb bi su bu ñu nu marine bi marine bi te marine bi bi soobu si tëmboon wala hélico bi naaw yàlla mën na si def jàmm. marine bi moom moo xale waaw ñoom bu nu demoon booba ba tey booba. kon man na am yàlla def si jàmm ba du ak si fii waaye non tey suba la ngoon ba bërki démb bërki démb si dimanche bi si lu nuy soog a wax ni si lu nu wax nu ne marine bi tëmb na laa dëri man xaw ma sara hélico ba tey mënagul naaw ba léegi mënagul naaw seeti ñun ku nekk si biir géej yéeg si gaal goo xam ne machine ba dawatul ndax bu machine bi doon daw leer na ma di sama doom teer ko ndax samay tànk machine ba dawatul ngay yol di dem rek foo jëm yàlla rek moo xam ay ñaan yàlla na ne yàlla sàmm dara bañ leen jot musal leen si ayu géej ak mbooloo mu jullit moom lay ñaan. yal na leen yàlla nit ñu yegg si ci seeni sago incha allah mais tey ci sa doom bi ñaata at la amoon amoon na soxna. soxna saa ngi si biir nekk jigéenu biir ba diis jigéenu biiru taawam soxnaa ma gi nii sama biir nekk toog nekk jigéenu biiru taawam am na ñaar fukki at ak juróom Faly Diagne. Faly Diagne lañ koy wax am na ñaar fukki ak juróom keneen bay góor a mbay fukki at ñeent la am xale la waaw ñoom ñaar kase àndoon kese. xamoon na ñoom ñaar kese di ànd wala buñ doon dem géej dañuy ànd ak ñeneen ñu leen ëpp. période boobu ñuy lii amee ñoom ñaar rek ñoo doon ànd saa yu nu demee bu nu téeree ñoom ñaar ñuy ànd bu nu téeree bu nu waree demaat ñoom ñaaree ànd tëmb ñaan rek lépp lu ma waaye man jàppalee ba sama doom dellu samay loxo rek moom laay ñaan si kàttanu yàlla bëgguma dara sama doom rek ak doomu jàmbar jooju rek laa bëgg ñëwaat samay loxo di ñaan si kàttanu yàlla loolu rek laay ñaan waaw. quatre heures la may fëgg bi muy ànd moo ñëw ne diw diw diw man naam kooku ma Faye Sarr moo wooroot ma daal di yee sama sët bi ma tëddal. daan ne ko jógul mu jóg ma ne ko tijjil buntu mu tijji buntu bi ma daal di taal ma ne ko taal lamp taal ma jël sama téléphone woo ko mu daan sama kër di sax jeex moom mu woo ma. yaay loo wax ma ne ko sa xale bi ngay ànd ñëw na mi ngi tax ma yaay dama sa biddanti ndax trois heures laa bëggoon jóg waaye nel ma mbëgge mu bil ko bunt yi mu ubbi mu génne bagage yi mu génne bagage yi ba mu jeex xale bi jóg ko fii moom mu yegg daal ñëwee yaay aal ma caabi robinet bi ma dindi caabi robinet bi jox ko mu ubbi ba pare delloo ma caabi ji nga pare nga ma waaw yaay tëjal mu daal tëj bi soom lii tëjal boobu laa mu jaw xam moom mu daal dem yëpp ay bagages am daal di dem ma di ko xaar ba sànq ba tey ba fi toog gisuma dara gisuma dara ba tey maa ngi ne massa yaay booy ñu ngi ñaan yàlla nit ko mu ñëw jàmm ak salaam fekk fii ay njabootam bu baax soxnaam ban état d'esprit nu mu nu mu def soxna si. soxna si moom métti na si moom waaye man mi yaayam dafa am noo xam ne suma ma ko réagir rek mu métti si ñoom man maa leen maa leen jur maa leen maîtrise métti na trop ndax du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg. ma métti si man trop waaye damay man métti si man dama koy nëbb ndax doomi jàmm di ma nekkal ak samay doom ndax suma ma jooyee ñoom bu ma xoolee jooy day métti rek toujours damay métti riir sama bopp waaye gën gënu ma am lu ma naqari sama xol bi gën gënu ma am lu ma naqari ma gën am lu ma métti waaw. ak gën am lu ma métti waaye man ma si dara ba sama métti riir sama bay di ñu jàll ñu jàll ci suñ pàppa ndaxte suñ yaay émotion jàpp na ko neexul sa doom surtout nag mu nekkoon doom boo xam ne daf la féete woon fu ne comme ni mu ko waxee ci kàddoom di ko jàppale lii bu ñëwee dina ko bett te it euh, dina doon lu métti waaye ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla nit ko ci jàmm ak salaam ba mu ñëw fekk si njabootam massa yaaboy waaw ah, noo lay dellu ziar di ñaan yàlla yonent bi ak suñu yaakaar Cheikh na Cheikh Saad bu mu leeral sunu doom ci xale bi nag il faut mu nekk jàmbaar ndax ay ku xaw ay maamam si gendax waaw dafa daan taw pour ak bàyyam ñu ngi gërëm ne man de fii sama état ndax ba ma juddu soo dégg naan hydrobase dafa amoon ay hydro avion avion yu yu fa daan teer lu am si géej gi nun naa ci taawu tubaab yi moo tax mu ngi ñaan son président président Macky Sall émergence bi mu wax mu yokkal si ay ay ay avion su ñu amoon avion mu man gën la dëkk avion hydro avion yi daf daan wàcc moo tax ndax hydro base Saint-Louis base marine française moo ko moomoon nous avons des officiers supérieurs nen wut ay avion mu ne si géej gi parce que parce que yii dafa am géej gi deux mois trois mois yi nu dem na ah marine bi marine bi lu mu gaaw gaaw avion moo gën gaaw mën de xale la woon ko dinaa si pont Faidherbe avion yi di wàcc ci dex gi di naaw ba ñëw eh, gaare kon nag président de la république loolu la lay ñaan waaw di ko ñaan tam suñu jigéen Marème Marème waxam ne président mu indi ay avion si avion yi di ko baas mu nga nekk am yeneen aussi si biir géej gi parce que avion yi noo mën indi mel nii su bu amoon su avion bi jógoon yàlla la moo amee nag mën na dem di gis ko bu gis ka waaye déjà tey tey dixième jour bi waaw di ñaan yàlla nag yàlla nag yàlla leeral waaw waaw sunu émergence bi mi ngi am waaye nag si la bokk ndax lenn moo am ñett ñi président wax na ko bëgg démb développement moo di agriculture pêche élevage waaw moo yaa ngi ay jàmbaar lañu géeju sedd gi ay góor yu si dugg waaw ay góor yu si dugg waaw président man maa la ko ñaan dimbali nu avion yaa ngi Sénégal émergence na mais nag des na hydra hydravion yi war nañ def ci géej gi fu ni ni pëy nu daaw dem waaw waaw hydrobase Saint-Louis lan la woon base marine avion la woon waaw nu nous avons nous avons des officiers supérieurs nous avons des seen armée seen ah, marine bi kenn mënu leen mais lool moo leen manqué avion be may naa benn avion hélicoptère ay hydravion lañu way mi wàcc géej gi dinañ jël di yóbbu ñu man xale ñun la woon ko daan tax ci pom bi di leen seetaan si pont pont Faidherbe kon yooyu moo wax ñëw di jaar yàlla nag yal yàlla leeral leen jàmm suñu réew mi te lii yal na ko yàlla taxal sunu doom ji yal na ko doon sunu loxo dégg na ko yàlla yoon du Cheikh Cheikh Cheikh Saad bu nu bu nu moo ko def rek parce que njaboot moo ko tax si baayam ak ndeyam yàlla defee nii mu dem di liggéey di sàkku wërsëg di liggéey bu sonal papa ak ndeyam ak baayam bu lii dalee dana ko ñaan yàlla yàlla indi parce que yàlla neex na yàlla moo neex yàlla fi mu nekk nag yàlla na ko yàlla génne foofu mu ñu boon jotaas waajuram mi ngi ko teg si loxo yàlla yàlla na ko yàlla def suñu gouvernement na xaw na des foofu comme ni sama mag ji waxee loolu moo am parce que accident géej afa afa ne loo xam ni aw géej amul bànqaas yu amul bànqaas mu déggee accident tël dana war jug der àgg lu war si wàllu wàllu avion yi dafa man naa am jëkk amoon na yoo xam ne su ko waa dox si géej gi loolu amoon ma maag parce que da ngaa ñëw décalé sur le PS am na géej ñoom ñëw bind ak seen yëpp yëpp waaye pour jóg nu mëri la jóg balaa jóg fekk loolu wees na parce que géej am na courant boo xam ne bu dee xase bay dox ndox moom xase balaa yéeg si biir géej yëpp xañ na si te instant yi ñëpp xam ne géej yi seet na seet boo xam ne ku nekk si géej ba ay semaine wala ñaari fan ba si nekkee te kii nit for la kon yàbbunu laaxal la waaw yàlla lii nag sama njaboot la sama doom la yàlla na ko yàlla ba mooy yàlla génn ki bu mu nekk nënd gi mu nekk yàlla na ko yàlla dugg si leer te yàlla dund moom di xaar si ma kanam moom laa ñaanal waaw waaw day du sama taaw de sama taaw du sama taaw ban ban moment lañ leen wax ne euh, gisatuñ leen wala ñu ngi ñaaw njoxtu ne dañoo réer ci géej gi. parce que moom nekkuma ko woon dama nekkoon ndar bi ma ñëw muy alxames àllarba laa jógeen seen wi ñëw moom mu départ àllarba si guddi dem géej ma accès muy ajuma fii laa jul ajuma mu war teer ajuma si fajar la war dellu siwaat bi mu demee géej ànd ak gaalu kombaam nappi bi mu nappee ba zone bi zone bi géej ay cent cent cinquante kilomètres la nappi woon bi mu nappee foofu. ànd ak gaal yi dem ba yàlla def mu ma am xéewal ma amee xéewal ne mën fa toog parce que yóbbu woon yóbbu kees goo xam ni kees gaal goo xam mën na ko def mën na ko jënd mën loolu tax mu bàyyi fa gaal pour ñëw kew yoofu débarqué jërëm nag bi moo ñëw si li ka li ka arrivé mu am mu am jën mu indi jën yooyu bàyyi fa yi des dem di ko jëliwaat déedéet dafa indi jën yi dafa doon ñëw pour indi yooyu bàyyi fa gaal yi nekkoon gaal yi mu combat woon parce que jën bi amul glace loolu tax mu ñëw mu si yóbbu ay deux heures matin la jógee diggante yu deux heures matin diggante ba deux heures ba cinq heures mu la ko dal si la ko dalee si la gaal gi pan sa ngoon sa bi mu ñëwlee sa ngoon sa gaal gi mu combat benn guddi lañu defaa teer parce que jën la bëgg sawee waaw ndax parce que jën la bëgg sawee man kon yàlla baax xëy na gaal gi combat na mën a dellu gaal booy sax taxi ni ma nekk fa de ah man ko yàlla nga fa parce que ngelaw teer tam teerul te géej gi gaal si gaal yaa ngi des nu xaar gaal yi sa lëg sa si la ñaari gaal yi ñëw ma laaj la ñu Palliser départ na deux heures guddi départ si guddi si man kon xale yi wax dëgg la kon Palliser pat na wala maarun na waaw léegi dañu jóg ñu jóg woo woo mbokk yëpp taxaw ñu jël gaal tolloog quatre pirogues de si essence essence bu ne sart ay deux cent cinq cent nga ñett gaal yu dem dem seeti gis nu ko soxla ko gis nu ko ba ma troisième jour gis nu ko su deuxième jour bi si la marine bi naan marine bi jóg na booba léegi noo ngi si dégg mbirum marine bi la nekk jóg na jógul waaw waaw ay dégg la si nekk ay dégg la noo dégg rek waaw yàlla yàlla yàlla moo xam fi mu nekk dégg naa ko yàlla yàlla mu nekk lan fu mu nekk yàlla ko yàlla dugal si leer génn si waaw maa ngi ñaan daal yàlla ko yàlla génn kenn ku yàlla waaw waa dëkk bi nag maa leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla fay leen parce que taxaw na ma taxaw bu rafet mbir mbir mi ba léegi taxaw na ma taxaw bu rafet maa ñaanal waa dëkk bi ak sama dëkkandoo yi am di jàmm yëpp dëkk bi Yoff yóbbu tóngoor ba ñëpp maa la ñaanal sama mbokk ndar yi waa ndar yi te macha allah jàpp na si waaw sama mbokk ndar gaal jañ leen gaal sa ndar dem seeti gis nu dara maa ñaanal ñëpp bépp ndar ba kayaar ba yof yëpp na ñëpp taxaw noonu di ma ñaanal yàlla na yàlla di indi ñaan gi nu ñaan yàlla nangu nangu ba mu del si waajuram waaw internet Sénégo TV ak Kawtef comme ni ngeen ko gisee rek bi ñu jógee fi nga xam ne mooy kër Baye Gora ba ñi nga xam ne ay waajuram def nañ ay déclaration ngi fii ci beneen kër gi nga xam ne ndaw si ki nga xam ne euh, dafa àndoon ak Baye Gora bi ak âge bi yëpp dañuy bàyyi ki ñu toogal moom rek pàppam la mu waxal ñu lépp tur bi la. man Samba Mbaye laa tudd. Mm-hmm. xale bi Baye Gora Mbaye la tudd atam tollu na si fukki at ak juróom-benn 16 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw affaire bi wax dëgg ni ñu ko yëgee metti na parce que man ak papaam dañu àndoon génne man ak papaam ñoo àndoon génne fa ñu génne nag man appel yi ma jot yoo xam te ne gëj nañ ma wow sax dafa bari ma xam ne yaa quelque chose am na lu ñu may nëbbu quoi si laa woo suma benn xarit man Papa ma ne man nekkuma yof actuellement dama génne mais sama xel dafa ñaaw daal dama bëggoon nga wax ma lu xew parce que suñu waa kër yi tamit noonu ku ma si woo doo ma jël ma buggoon xam lan la ko affaire yi man maay mbuur fa am soxla bu ma doon doxi ji foofu maanaa papa yi góor a ñoo àndoon mhm. mais après noonu suma xarit bi moom woo ne ma daal dama dégg dafa am gaal gu tëmboon mais teeragul ma nekk kon ñàkkul ba bàyyi góor a si la nekk mu a waa loolu lañ ma wax sax nee nañ ma kii teeragul noonu moo bàyyi góor a ñoo àndoon ma ne ko ñooñu seen teer weesagul lii laa ko si tegal ma ne ko ñooñu jeudi lañ tëmba normalement samedi lañ war a ñëw ma ne mais bi passé demam bu mujj bi bi muy ñëw fekk na sax xaw ngoone na ma ne ko ba dafa ñëw tuuti rek timis jot nit ñi ne dañ dañ gaawtu mais kooku ñëwam weesagul loolu laa explique suma xarit boobu après ñu xëy comme sam dimanche gaal yi commencé nañ di seeti ji dimanche lundi mardi yëpp. mais jamono boobu noonu géej gi neexul seet gaal géej gi dafa ngelaw même gaal yi nga xam te ne doon dem di seeti ji dañ mujjee di am ay yaaxu-yaaxu pour si seeti bi dafa metti woon trop daal. léegi nag diiran boobu wax léegi tamit ñu ngi toog di dund yaakaar te am nañ si yaakaar bu baax a baax boobu wax léegi nag ñu ngi toog di dund yaakaar ne xale yi dinañ dellu sa waat suñuy loxo si jàmm ak salaam. li moom balaa moo dem dafa àndoon ak yéen après mu dëppaat. waaw jour boobu jeudi boobu. papa ji nee na boo ñu jàppalee ñu meb ba pare da dem ànd jeex Faly Sarr parce que woo na si guddina na tey da di dem géej bi ñu nekkee tefes tamit ñu meb ba pare Faly Sarr wootewul téléphone papa ji ne ko kon wootewul nañ dem géej kon su ñun man moom a papa ji ànd nañ jur boobu dem nañu ba bëgg a génnee te ngeenu yof bi île bi Faly Sarr si la woo papam téléphone papa ji wàññi wuyu na ma ki muy àndal nii de mooy woote mu ngi tefes. mana ne ah, yóbbu ko mu àndi jeex moom mën a xew ñu continuer ñu ànd ñaar pour ñu xam ne ndogal du mooy borom xale bi ñëwaat nañ ba tefes wàccee ko jour boobu muy jeudi mu dem àndi jeex Fally Sarr man ak papa ji ñu continuer dem liggéey biñ teeree jeudi vendredi dañ génnoon man ak papaam am soxla bu ñu doxi ji samedi boobu nag si la ñu yëg ne nouvelle bi ne ñoom teeraguñu ba nii daal ñu ngi taxaw di dunda dundandi yaakaar gisaguñ dara mais yàlla bëri na sutura. Mhm. waaw doon nañ ànd nag lu jiitu lii doon nañ ànd ànd nañ fi ñaari yoon dem comme ñetta ñaari yoon ba ñetta la ànd nañ ko fi dem uti ji comme façon liggéey ñuy defi nii mais yàggul de trop mhm. waaw. am nañ si yaakaar bu baax a baax ndax ab jullit moom day yaakaar rek te ñun ay jullit lañu wax dëgg nangu nañu tamit ndogal bi amuñu si benn xel mu ñaaw ndax nit ku nekk si sa liggéey si ngay am gàllankoor ñun. lu jiitu gàllankoor bi façon bu ne tegu na su ñun ndax ñun ñoo ko jiitu si métier bi mu nekk suñu doom la ñëw na nag juddoo si kër goo xam ne peut-être kër gi yëpp ay mool lañu ay ñun géej rek la ñu xam mais lii ndogal bi ñëw ni donte ne dal na si kawam yeneen budul bi jaar na fi dal suñu kaw nangu nañ ndogal bi bu baax a baax xam ne nit ki nag si sa métier si ngay am gàllankoor waaw wax dëgg yàlla nangu nañ ndogal bi bu baax a baax amuñu si benn xel bu ñaaw tamit lu dul jël lépp teg ko si loxo yàlla xam ne yàlla mi nga xam ne moom mooy moo yor mbiram mun na nammee ñu gisaat suñu doom ja dinañ ko gisaat su ko namul tamit ñu xam ne loolu mooy li gën si moom te dañu koy ñaanal moom ak Faly Sarr yëpp yàlla ñu dellu sa waat seen loxo way jur yi wax dëgg na yàlla ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax. yal na yàlla nit ñëw fekk si leen ci jàmm ak salaam dernière question rek est-ce que cas yi <clears throat> dafiy am lu bëri. waaw souvent léegi mu ngi bëgg a bëri yoof wax dëgg affaire yi léegi mu ngi commencé di bëgg a bëri fii nii daanaka booy xool mais li koy waral yëpp mooy ñàkk matériel yi nga xamante ne ni mën nañ di di aar mool yi loolu surtout loolu moom wax dëgg yàlla manqué nañu bu baax a baax manqué nañu parce que tey da ngay gis koo ne mu ngi këram tëdd jabaram nekk si vol war a jugee bitim réew ak fu mu mën a doon mu toog xam ne vol bi heure sangam lay war a egsi bala muy ñëw mu fexee jiitu ko aéroport dem gàttanu doomam te ñun mool yi mënuñu am loolu ñu ngi force weewu béy na sax moment boobu réer di door a am Fally bu ñu localiser téléphone am dinañ gis ne localisation mu ngi tàkk mais boobu jamono amuñu jumtukaay pour dem fa ñun ñun bu ñu xamoon fi mu nekk exact ak ah géej nu mu mën a mel dinañ dem ba foofu jëli ji ko ndax ñun xam nañu géej muy ñun ak côté Falisaar yëpp bu ñu xamoon exact fii lañ nekk géej nu mu mën a mel dinañ dem jëli ji leen mais nag comment que xamuñu dañuy wër di làmbatu rek te ku dul may sa bopp loolu suñu borom may nga jël. dem nañ fere nañ seen i moyen la def nañ la tous les moyens dem uti ji seeti ji nañ wasu nañ seen aax def nañ li ñu war def mais diiran boobu li yàlla wanaleegu ñoox ñoom ñuy ñaan tamit bu dee état bi mën nañu jàppale si côté boobu noonu ndax am nañ si yaakaar ne tey li waroon jog bu jogee wax dëgg na yàlla kon mbir mi doon woon egg si fii mais li waroon jog jogul mais sant rek daal waa wax dëgg yàlla ak lu mën a xew dañuy sant bu baax a baax ñu xam ne peut-être suñ borom moo moon lii su ñoom. waaw moo moon ne temps bi ñu def nii tey si géej gi dinañ ko fa def même bu fekkee dinañ leen gisaat moo moon lii su ñoom wax dëgg yàlla. xam ban état d'esprit la ndaxte nee na euh, nañ la bàyyee kàddu bi yëpp benn la. munoo wax wax dëgg lépp tranquille waaw xelam mu ngi baax macha allah parce que mooy li ma lay expliquer rek xale bi li papaam def si géej du ko def si géej loolu mënul nekk papa ji da doon dem marée bateau di def ay trois mois ay 4 mois papam ji nii boobu ñun gën nañ fi nekk ay tout tànk kon lii am nii du jaaxal papam ndax ñun lu ñu xam-xam géej papam moo ñu gën a xam géej bu baax a baax wax dëgg na yàlla. moo tax affaire bi jaaxalu ko amu si tamit benn xel bu ñaaw wax dëgg na yàlla mu ngi àndaax dala même yaayu xale bu góor bi amuñu benn ñu ngi daal wax dëgg macha allah quoi ñu ngi jël lépp teg si loxo yàlla waaw mais amuñu si ah waaw moom mooy taawu yaayam mais nekkul taawu papam am na ay rakk am na rakk boo xamante nekkul Sénégal actuellement mu ngi ni waaw moom dafa waroon def Mauritanie mais mooy li ma la rek nit sa destin daal lii la fi doon xaar peut-être waroon na dem Mauritanie defaroon photo d'identité mag yëpp ba waroon dem actuellement ki mu waroon àndal pour dem moo mujj yebbi demam ba xale rakkam yooyu demoon xanaa léegi ñu toll si ñibbi si sax wax dëgg na yàlla mhm. na sutura waa koy jërëjëf. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla bu baax di julli si sangu sangay di ñaan si yàlla mi dara teewul maa yar papaam si biir kër gi. jabaram ñëw ah doomam ma yar leen ci kër gi mais liggéey rek lañ xam liggéey rek lañu xam kii moom matériel bi it bali am it ay doomam liggéey rek lañ xam kër goo wax kër gi dafa ni benn la sotti si rek la ah def si parce que man mii maam ma carrière gépp kër yaay xale boobu tey fa lañ ko defee ñoo daan bokkandoo añ bokkandoo reer bokkandoo naan attaaya bon bu problème bi amee dañuy sant yàlla rek am na yàlla lii la dogal bu ñëwee war naa ñëw bu ñëwul ñu gëm na yàlla moo ñu ko joxoon yàlla kenn du ko jox moom mais ba tey ji ñu ngi am yaakaar ne xale bi dina ñëw sara bu ñu digal def nañ ko yaaya xale bu góor bi li ko sara bu ñu ko digal def nañ ko yaaya boo gisee balu toog xol bi boo tooy parce que doomi taaw la te def ko jigéen ñoo torop yaayam dafa yéex am doom ji jigéen lépp yaay moo ko doon def boobu xale bi bu laa dem géej yaay mi rek a rootal biteel yi bàyyi a sangul bàyyi góor a jàppal si yooyu rek la ko xiir fan yi demul si moom nekk rek laa toog papa ji nakaat yow dama yaakaar ne say borom dañu la mu leen instant bi ne fii moo ma neex xam nga man nan la ma tuddee mère Binta Paye mère Binta Paye rek la ma tuddee depuis maire bi tamit génn si rajoy ba léegi moom la ma oowee di ko fa man di ko fa ñi si kër gi boo amee xaalis xale yëpp lay may xale yëpp xale yëpp lay may mais ni mu mel ni sañu la bañ parce que baayam ba fi mu toll nii mën la lijjanti boppam dara moo tax mën na mën la wax liggéey ñëw rek lañ ko sant ba tey si la nekk maa ngi koy ñaanal yàlla ni mu ma tëniire doomam ji yàlla na dellu si waat si ni ma suturaale doomam ji yàlla dellu si si loxaam ah Faagi Sarr Faagi Sarr xale bu baax parce que yaayam gërëm na ko gërëm na ñaari ndaw yàlla boole la ñoom gërëmal way jur yaa ni leen gërëmal jur delloo sewaat loolu rek laa ñaan. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di wax si Baye Gora di wax fi ma toll woon daal ak affaire fi mu toll yi bay war a tolloo na si man foo xamante ni mooy loolu daal ak tey affaire ni mu demee nii man daal moo koy ñaanal rek ñëpp ni mu mënti demee dañ ñëwaat si jàmm ak rek barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay ñaanal boo yëpp a ngi nii toog ñëpp ay ànd jur kon nag tey bu ñu ciyee gis lii daal dañuy xam ne lépp yàlla daal ndogal si yàlla lépp luy jógee ñu ñëpp ay mool leen dañuy dem géej sa jur man keroog deg bi muy biñ koy seeti fii damay tëmba teer bi nee ma teeragul jooy kase ma dese woon barki alxuraan billaahi nga koy ñaanal nag yàlla nag lu mënti xew daal mu ñëwaat si jaama salaam rek